ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci njàng mi weesu jàngoon nanu ci mbirum seexi isaaxa yi di ba ak esaawu esaawu xeboon na dikk yi yàlla digoon maamam ibrahima ba weccee ndonol taawam ak lekk waaye yanqoba moom fonkoon na lool digg yàlla yi wante loolu taxul woon yanqoba ñàkk sikk turam sax faf mu ngi tekki naxkat bi te ji nag fas nanu yéene jëm kanam ci tawreet ba gis ni yàlla soppee yanqoba naxkat bi ba mu nekk yanqoba waayu yàlla ji ci dëgg-dëgg yanqoba naxkat la woon mbind mi day nettali ni mu naxewoon woon esawu magam ñaari yoon ngir fexe sàcc ndonol taawam looloo taxoon esawu ci meram mu fasoon yéene rey rakkam naka noonu seen yaay rebeka woo yanqoba ci kumpa xelal ko mu daw dem ca kër nijaayam laban mi dëkk ci karan toog fa ba merum esawu giif léegi nag nanu jàng ci téereb njalben ga saar ñaar fukk ak juróom ñett ba gis li xewoon gannaaw ba yanqoba jóge kër baayam jëm kër nijaayam mbind mi nee na bi loolu weye yanqoba génn beerseba wuti karan karan moo doon réew ma ibrahima dëkkoon ba ko yàlla woowe yanqoba agsi nag ci benn bërëb fanaan fa ndaxte booba jant bi sona mu jël fa benn ca doj ya daldi ko geganoo noonu muy gént di janeer yéegukaay bu samp ci suuf te cat la sar ci asamaan muy gis malaaka yàlla yi di yéeg ak a wàcc te aji sax jaa ngi tollu ci wetam naan may aji sax ji di yàlla ibrahima sa maam di yàlla isaaxa suuf si nga tëdd dinaa la ko jox yow ak saw askan saw askan dina ne gàññ ni suuf dinga law ci ñenti xeble yi penku ak soow ndeyjoor ak càmmoñ giir yi ci kaw suuf yépp dinañu barkeelu ci yow ak saw askan te maa ngi nii ànd ak yow di la sàmm fépp foo mën a dem ba delloo si la ci réew mi ndaxte duma la bàyyi mukk ba kero may def li ma la wax ci kaw loolu ba yeewu ne ci dëgg-dëgg aji sax ji mu ngi ci béréb bii te xamuma ko woon mu daldi ragal ne cey bërëb bi ni mu rag loo fii kay du feneen fudul kër yàlla fii mooy buntu asamaan ci suba teel nag yankoba jóg jël doj wi mu geganaayoo samp ko muy pàttaliku mu sotti ci dëwlin mu tudde bërëb ba betel maanaam kër yàlla noonu nu gis ni yàlla feeñoo yankoba ci gént di ko dig li mu digoon maamam ibrahima ak baayam isaaxa maanaam def ak askanam xeet wu rëy noonu nu gis ne ndonol taaw li ba sàcc ci magam ca mujj ga yàlla may na ko ko ba ci boppam yeeyowul woon nekk baayu xeet wu bees wi naroona indi ramukat bi ci àddina wante yàlla mooy aj yéwén ji may lu baax ñi ko yeeyowul looloo taxoon yàlla feeñu ba ci gént wax ak moom léegi nag lan la yankoba gisoon ci biir géntam bind mi nee na muy jeneer yéegukaay bu samp ci suuf te cat la sar ci asamaan muy gis malaaka yàlla yi di yéeg ak a wàcc ci biir géntam nag ba gisoon na ab yéegukaay li ñuy wax ci français échelle échelle bi ba doon jeneer échelle bu doy waar la woon bu gudd lool jóge suuf di laal asamaan dugg ci jataayu yàlla sax jaare ko ci géntu esel bu gudd boobu yàlla dafa bëggoon a woon ba ni mu bëggee am diggante bu neex te jege ak moom te yàlla bëggoon na ko woon it ne ramukat bi naroon a gane ci àddina dina mel ni esel boobu nekk diggante suuf ak asamaan diggante nit ak yàlla ba tey ñu bari dañuy xalaat ne nit mën na yéeg dugg àjana ci kaw seeni jëf yu baax wante benn esel rekk am diggante yàlla ak nit ñi te esel boobu jógewul ci nit waaye ci yàlla nun doomi aadama yi ci sunu doole bopp amunu menn pexe yéeg dugg ci jataayu yàlla li waral loolu mooy sunu bàkkaar ak sunu ñàkk doole ngir neex yàlla aji sell ji waaye yàlla mi bare yërmande ci kaw mbëggeel gu rëy gi mu am ci nit ñi ubbil na doomi aadama bunt mucc noonu esel bi yanqooba gisoon ci géntam dafa doon misaal ramukat bi yàlla dige woon yónni ko ci àddina ngir musal bàkkaarkat yi ramukat bi dafa mel ni esel bi yanqooba gisoon diggante asamaan ak suuf moom la mbind bi jàngale bi mu nee jenn yàlla képp moo am ak benn ramukat képp diggante yàlla ak nit ñi di nit ki kirist yeesu mi joxe bakkanam ngir jot ñépp ngir képp ku ko gëm am dundu gudul jeex te doo sànku mukk kàddug yàlla leer na nàññ ci lii kenn du ñëw ci yàlla te jaarul ci ramukat bu sell bi yàlla yónnee ca asamaan léegi nag nanu jëm kanam ci nettalib yanqooba ba gis lu xewoon gannaaw ba mu àggee kër nijaayam bind nañu ci kàddug yàlla ne lu waay ji moom lay góob dégg nanu ba noppi ni yankoba naxe magam te léegi dinanu gis ni ko nijaayam di naxe moom itam nijaayam a ngi tudoon laban di nit ku muus nu ngi jàng ci saar ñaar fukk ak juróom ñeent mbind mi nee na noonu yankoba nekk ak laban nijaayam lu mat weer gannaaw loolu laban ne ba du li ngay sama mbokk moo tax nga war ma liggéeyal ci dara wax ma lan mooy sa peyor labaan nag amoon na ñaari doom yu jigéen taaw ba tudd leya rakk ja tudd rasel laya am bët yu lëndëm waaye rasel jekk xalima te rafet cib gis fekk yanqoba bëgg rasel mu ne labaan dinaa la liggéeyal juróom-ñaari at ngir rasel sa doom ju ndaw ji laban tontu ko may la ko de moo ma gënal may ko keneen nekkal ak man noonu ba liggéeyal laban diirub juróom-ñaari at ngir rasel waaye mu mel ni fi moom ay fan rekk ndax mbëggeel gi mu am ci rasel ba loolu wéyee nag ba ne laban jox ma sama jabar ndax àpp bi jot na ngir ma àndak moom noonu laban toggulu ay reer woo ca nit ña fa nekk ñépp ci timis laban jël doomam laya jëbal ko yanqoba mu ànd ak moom ba bët sete yanqoba fekk muy laya mu ne laban loo ma def nii ndax liggéeyaluma la ngir rasel lu tax nga wor ma waaye laban tontu ko ne rakk jëkka say mag du aada fii seetul ayu bés nag ak kii ma door laa jox ki ci des soo ma dee liggéeyalaat diirub juróom-ñaari at ba def noonu seetu ay bis ba noppi laban jébbal ko rasel doomam noonu ba ànd ak rasel mu gënal ko leya te mu liggéeyalaat laban juróom-ñaari at noonu nu gis ni laban naxe woon yanqooba jarbaatam li xewoon neexul woon wante mën ngeen xam bu wóor ne yàlla doon na jooloxoom ci li xew ci dundu yanqooba ngir jural ko lu baax ci lu gàtt nag war ngeen xam ne yanqooba juróon na fukki doom yu góor ak ñaar te nekkoon ci kër nijaayam diirub ñaar fukki at ci diirub ñaar fukki at yooyu yàlla ci mbëggeelam bàyyi na yanqoba mu jaar ci natt yu tàng ngir yar ko te di sellal ngëmam ni safara di setale wurus amoon na bes nag yàlla feeñuwaat yanqoba ne ko dellul ci sa réewu maam fa nga juddoo dinaa ànd ak yow noonu yanqoba jóg toxu moom ak njabootam gépp ñu jëm réewum kanaan maanaam réew mi yàlla diggee woon jox ko ibrahima isaaxa yanqoba ak seen askan wante bi ba ak njabootam nekkee ci yoon wi yàlla daldi feeñu ba ci guddi ci melokaanu nit bëre ak moom déglu leen li mbind mi wax ci saar fanweer ak ñaar booba am nit kuy bëre ak moom ba fajar di xar te nit ka gis ne mënalu ko dara kon mu daldi dóor yanqoba ca mooco te mooco ma daldi summeeku ca bëre bi noonu nit ka ne bàyyi ma ma dem ndax fajara ngi xar waaye yanqoba tontu ko ne duma la bàyyi nga dem li feek barkeeloo ma nit ka ne ko nan nga tudd mu tontu ko ne yanqoba nit ka ne ko dootuloo tudd yanqoba waaye israel ndaxte bëre nga ak yàlla bëre ak nit ñi ba daan yanqoba ne ko waaw yow nag noo tudd mu tontu lu tax nga dima laaj sama tur noonu mu barkel ko fa bi loolu weye yanqooba tudde bereb ba peniyel maanaam xar kanamu yàlla ndaxte dane janoo naa ak yàlla teewul maa ngi ak sama bakkan nettali bi nettal bu doy waar la te fees ak njariñ gisoon nanu ni yàlla feeñoo yanqoba ci melokaanu nit ba bëre ak moom lu taxoon yàlla bëreek yanqoba ndaxte yàlla dafa bëggoon yanqoba xam néew dooleem fa yàlla dafa bëggoon yanqoba xam ne kàttan gépp ak xam-xam bépp ci yàlla la jóge te ci yàlla dong lay jóge yàlla dencaloon na yanqoba ay yéene yu neex waaye barke yàlla yu gën a neex mënuñu wàcc ci ñiy xalaat ne am na ñu doole ngir neex yàlla waaye ci guddi gi nga xam ne yàlla bëre na ak moom yanqoba gisoon na ñàkk dooleem fa kanam yàlla te ci kaw loolu yàlla joxoon na yanqoba tur wu bees maanaam israel yanqoba mu ngi tekki naxkat wante israel dafay tekki ki nara nguuru ak yàlla israel mooy turu xeet wu bees wi yàlla digoon def ci askanu ibrahima ni ngeen ko xame ci fukk doomi yanqooba ak ñaar yi la xeet wi ñuy woowe israel soqi ko te ci bànni israel la musalkatu àddina si wàcce moom mi yelloo teraanga ba faw xëy na am na kuy laaj lu tax yàlla tànn ab naxkat bu mel di yanqooba di ko def baayu xeet wi naroon a indi ramukat bi ci àddina déglu leen tontub mbind mu sell mi nee na li àddina teg ak ndof yàlla tànn na ko ngir rusloo boroom xamxam yi te li àddina teg ak ñàkk doole yàlla tànn na ko ngir rusloo boroom doole yi li dul judd bu rafet te mata xeeb ci àddina yàlla tànn na ko yàlla tànn na li nekkul ngir neenal li nekk noonu kenn du mën a damu ca kanamu yàlla yanqooba naxkat la woon moom ci boppam dafa ñàkkoon doole ngir neex yàlla amul woon dara lu baax ci moom lu dul yanqoba gëm na kàddug yàlla yanqoba fonkoon na digi yàlla jot barkeb yàlla mu gënal ko sax lépp lu mu mën a doon loolu moo taxoon yàlla xamal ko boppam te barkel ko looloo taxoon nit yàlla soppi yanqoba naxkat bi mu nekk israel waayu yàlla ji yow nag ni yanqoba ndax ràññee nga sa ñàkk doole ngir neex yàlla déglul kon li mbind mi wax ci loolu mu ne yéen ñi xam seen ñàkk doole ngir neex yàlla barkel ngeen ndaxte nguuru yàlla aji kawe ji yeena ko yelloo yàlla day dàq ñi rëy di yiwal ñi woyof suufeel leen seen bopp kon ci ron loxob yàlla bu am kàttan ngir mu yëkkati leen ci jamono ju ko soob kon mbokk nu ngi leen di gërëm ci déglu bi ci njàng mi di ñëw bu soobee yàlla dinanu tàmbali gëstu ci nettali bu doy waar ci mbirum jenn doomu yanqooba ju tudd yuusufa su fekkee ne am ngeen lu ngeen di laaj ci li nu jàng tey ngeen bind nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci aaya yi nekk ci kàddoom te naan naka noonu aji sax ji bëgg na lool defal leen yiw te mu ngi leen di xaar ngir defal leen ko te dina jóg ngir yërëm leen ndax aji sax ji yàlla ju jub la ñi yaakaar ci moom ñépp barkeel nañu